wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala nabiyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim tasliman mbokk yi seetaan seen télévision MKTV di télévision bu mag bi nekk ci jumaay Touba ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi jiital ci nuyoo boobu ak ziyaar bi saaxibul fadilati cheikh Mouhamadul Muntaxa al xalifatul am li tarixatil muridiya di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér. moom njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp ba naal yi nga xam ne fas yi naal nañ ko ngir liggéeyal Serigne Touba ñu mën koo àggale ci seen sago di ko ñaanal itam mbokki taalibe yëpp di ziyaar ñëpp ci euh, weeru màgg wi nga xam ne moom lañ bëgg moom lañ dëgmal muy weeru safar di ñaan suñu borom àggalañ ci jàmm ci bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba digee dige yu rëy yooyu ci képp koo xam ne taxaw na ngir santale ko boroomam ci tukki bu rëy boobu mu defoon Euh, ngir waajal bis boobu sax moo waral jotaay bii ñuy wax liqaa muy ndaje dellu siwaat ci geneen anam ngir gën koo mën a yaatal ndax xam nañ ne ndaje weer wu jot la daan am benn yoon waaye nag ginnaaw màggal gi dafa jub si te liggéey yi bari euh, yiñ ci war a wax itam yaatu tax ñu ne nañ gën a yaatal ndaje ba man cee def ay jataay ay plateau spécial yoo xam ne dana mën a jariñ mbokki taalibe yi dana leen mën a soññ ba bu ñuy ñëw ci màggal gi ñu xam ni ñu fiy ñëwee jataayu tey bii nag bokk ci jataay yooyu ñu war cee waxtaane euh, tomb bu am solo ndax ni ñu ko xamee Touba day dëkk bu mag boo xam ne ni ñu ko xamee mooy deuxième ville du Sénégal ci wàllu population euh, dëkk bu mel noonu nag bu amee xew-xew bu mel ne màggalu Touba nga xam ne mën naa ne réew mépp ñoo daje ci benn barab lu jege ñeenti million juróomi million ñoo fiy daje dana laaj ay matukaay ba tax na am na kuréel yoo xam ne naka jekk ñi ngi doon yëngatu ci dëkk bi ci yëngatu bu fés ci anam gu fés nga xam ne ñëpp a ci teg seen bët euh, kuréel yooyu nag am ay taxawaay yu ñu war a taxaw ci màggal gi loolu moo waral euh, seen émission ndaje nag fas yéene daral kuréel kuréel yooyu ñu waxtaani seenub liggéey waaye itam waxtaan itam nu ñuy waajale màggal gi ak matukaay yi nga xam ne moom lañ bëgg taalibe yi jël ko ba nga xam ne suñu màggal see incha allah danañ ko def ni ko borom bëggee ba delluwaat ci jàmm te benn jafe-jafe du am mu bokk ci kuréel yooyu nag euh, euh, kuréel gii ñuy wax euh, service d'hygiène waaw brigade nationale service d'hygiène bi nga xamante ni bi moo nekk Touba ñu ci dalal nag jàmbaar joo xam ne depuis mu nekk fi ba léegi wax dëgg yàlla liggéeyam ñëpp a ko ràññee ci pastéefam waaye gëdd gi mu jox liggéey bi ak effort yi mu ciy def yu yu fës la loola waral ñu daj dalal waa service d'hygiène tey ci jataayu liqaat ñu ciy dalal capitaine Alassane salaam Keita mi nga xamante ni moo jiite brigade spéciale bu hygiène bu Touba. Euh, kon dañ koy jox kàddu gi mu nuyoo rek bu ko defee ñu ñu ñu doog a tàbbi ci waxtaan yi capitaine ñi ngi lay nuyoo. alhamdulilah auzubillahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa am ñu ngi lay fayit waaleykum salaam di nuyu comme ni nga ko tàmmalee ci sa waxtaan eh, képp koo xam ne mi ngi suivre li nga xam ne mooy émission bi waaye di jiital ci nuyoo gi eh, sëñ Mountakha eh, di ko ñaanal yàlla comme ni nga wax rek yal na ko yàlla may gudd fan ak wér ba li nga xam ne mooy mission bi incha allah motal ko si jàmm di rafetlu li nga xam ne également mooy invitation bi ci jotaay bi comme ni nga ko waxee service d'hygiène daanaka taxawaay bi nga xam ne am na ko ci Touba wala boog li ñu koy xaar it ci Touba. Euh, su ko defee xam naa ne ci biir waxtaan. yu bëri ci yow incha allah dinañ ci dellu si. Euh, waaye duñ def lu dul kontaan rek. Euh, vraiment di di ñaan yàlla émission bi mu gën a jëm kanam. ba li nga ci mbëbët yëpp. incha allah mu mën a nekk loo xam ni dina dinañ ci mën a jot. population bi maanaam ñi koy déglu yëpp ñu mën ci am njëriñ bu baax a baax ba li nga xam ni moo doon yéene bi mu àgg incha allah jërëjëf. ok jërëjëf capitaine capitaine ni ko waxee ci sama njëlbeenu waxtaan. màggal Touba day événement bu mag boo xam ne euh, ni ma ko waxee dafay dajale mbooloo mu bari dafay rassembler lu jege 4 ba 5 millions. ci biir Touba. léegi nag xew-xew bu mel noonu dana laaj ci wàllu set. ci wàllu euh, euh, wér-gi-yaram loo xamante ni faw nag am kuréel goo xam ne mooy taxaw nag ci soññee ci loolu ngir mu mën a am ci wàllu set gi wàllu wér gi wér-gi-yaram gi waaw léegi nag loolu moo waral tey suñu jotaayu tey bi mhm. waaye li may li may kese bu may njëkk a posé rek mhm. mission wu service d'hygiène mhm. maanaam sas wi nga xam ne moom la am suñ ko doon wax lan mooy mission wu service d'hygiène euh, jërëjëf euh, mission service d'hygiène euh, buñ ko doon wax tey dañ naan service d'hygiène am na juróom-ñaari mission yoo xam ne boo demoon ci texte yi dangay gis ñu bind ko waaye daanaka boo duggee ci biir texte yi da ngay gis ni daanaka romb na sax juróom-ñaar Euh, buñ ko doon tënk rek ci tënk ndax euh, duñ fi nekk di di di indi lépp noonu waaye ci tënk dañuy wax ni dafa nekk service boo xam ni yàgg na lool ci Sénégal euh, depuis jamonoy indépendance ba léegi service di d'hygiène mi ngi fi waaye bu dee service d'hygiène u Touba ci 1996 lañ ko sos boobu ba léegi kon service d'hygiène mi ngi Touba di def yëngatu yi nga xam ne moom moom moom lay def da cee bokk nag ci ay mission am mu doon service boo xam ne dafay yeete di jàngal nit ñi ak di leen yee ci li nga xam ne moom mooy cet maanaam lépp loo xam ne dan naan cet la rek boo xam ne dafa dafa laal euh, askan wi euh, sëriñ ngir nga mën ngir mën a yokk wér-gu-yaramu doomu aadama ngir mën a téye li nga xam ne mooy wér-gu-yaram gam fa fekk loolu maanaam liggéeyu service d'hygiène la su ko defee kon liggéey boobu euh, ngir mën ko matale dafa am anam yu bëri yu muy laal lu ko mel na day day dana dana dana wax ci lu jëm ci wàllu ndox yi dana wax ci lu jëm ci wàllu mbalit yi dana wax ci lu jëm ci wàllu euh, lekk geeg naan gi dana wax ci lu jëm ci wàllu dëkkuwaay yi dana wax ci lu jëm ci wàllu colin yi sax la ngay sol ak naka nga koy solee maanaam ak sa yaram loolu yëpp dafa nekk loo xam ni service di d'hygiène maanaam mission bi globalement buñ ko doon tënk danaan service la boo xam ni dafa aajowoo ci yee nit ñi ak ci di leen jàngal ak ci di leen euh, euh, maanaam orienté ci lépp loo xam ni dafa jëm ci maanaam seen dundin ci naka lañ koy mën a euh, amalee ba nga xam ni dëgg-dëgg lépp luy feebar buy mën a gaañ te ñu mën koo moytu incha allah danañ ko mën a moytu. nga xam ne daal mën nañoo wax ne moom prévention. fagaru mooy mooy mooy mission service d'hygiène. d'ailleurs loolu sax moo nekk ci suñu bind. fagaru moo gën faju moo gën faju waaw xeex tilim. Mhm. daan feebar daan feebar. loolu mooy loolu mooy seen devise. loolu mooy devise mooy devise bi macha mu am solo. mu mel na itam dafa nekk kuréel goo xamante ni dañ ko euh, joyal ci ministère de la santé. su ma juumul ci la ba léegi mi ngi ci ba léegi fa la nekk fa la nekk ministère de la santé loolu mooy wane ne loolu mooy wane ne service d'hygiène dafay dafay prévention lay liggéey mhm. ngir ngir ngir ñu bañ a àgg ci mhm. ci ci ci ci feebar moo tax mu lëkkaloo ak santé nga xam ne intervention yi muy def yëpp ci ci santé publique lay la la la lay jëm muy lu am solo nga wax nga sànq ne mhm. service d'hygiène bu Touba 1996 la fi la fi la fi ñëw waaye pour la moment nii agent yi ndax ñaata agent ñoo fi nekk fi may waxee yow nii am na juróom-ñaari agent yoo xam ne ñoo nekk ci brigade bi eh, yàlla dogal man ma jiite leen uh-huh. donc su ko defee lépp ci brigade bi dafay nekk juróom-ñetti agent juróom-ñetti nit waaw macha allah juróom-ñetti nit Euh, est-ce que am nañ siège boo xamante ni fa lañ nekk wala dañu dañu dañu dañu nekk ci. waaw dañu am fu ñu luyee. fu ñu foo xam ni ci ci ndimbalu district sanitaire. district sanitaire ndax comme ni nga ko waxee ministère de la santé et de l'action sociale ñu bokk ak donc lépp lu jëm ci wàllu wérgu yaram. Mm-hmm. ñun ñu féetewoo wàllu prévention. Mm-hmm. donc euh, district bu Touba. mooy moo ci jàpp. Mm-hmm. ba ba fi ñu nekk nii dañ koo luyee ñoom ñu koy fay weer wu nii. waaye mais wax nga ci sa biir wax sànq lu am solo ci bi ngay wax mission service d'hygiène mm-hmm. maanaam ci lu wàllu éduquer yee nit ñi sensibiliser leen mm-hmm. ma jàpp mission boobu sax mooy bi war a gën a jiitu mooy nit ñi xamal leen mm-hmm. euh, ba ba ñu xam danger yi nekk ci euh, jëfandikoo salte wala wala wala microbe di la jege euh, bu ko defee éducation boobu ci ci yan support ngeen ngeen ngeen ngeen koy doxale yéen alhamdulilah Euh, ngir mën a jàllale li nga xam ne moom mooy euh, euh, yee boobu comme ni nga ko waxee ni nga ko ni ko waxee ci mission yi mhm. pour mën a xamal nit ñi dafa am lu ñuy wax déjà ay ay mission régalienne yoo xam ne yu service bi la waaye amaat yeneen mission yu teguwaat ci kaw loolu mu bokk ci lu ñuy wax ay visite à domicile mhm. maanaam di dem ci kër yi di di waxtaan ak ñoom mhm. bu ñu xëyee agent yi dañuy def lu ñuy wax par binôme ñaari nit yoo xam ne donc dañuy dem yenn saa ñu def ko lu ñuy wax tiir groupé maanaam ñëpp wàccandoo ci benn koñ bu ko defee ñu dugg ci koñ bi euh, dugg ci kër yi xool li nga xam ne moo moo moo moo moo moo moo fa maanaam ci wàllu ci wàllu cet hmm, nu ñuy toppatooyee mbalit yi nu ñuy toppatooyee ndox yi ak yooyu di waxtaan ak ñoom ci anam boobu euh, di waxtaan ak ñoom aussi comme ni ñu ko waxee sànq ci wàllu li ñuy lekk ak li ñuy naan di leen xamal ni euh, boo demoon ci boutique ba tey di jënd na nga xool bu baax la ngay jënd mm-hmm. ndax date bi mm-hmm. euh, baax na mm-hmm. wala ndax mbir mi yàquwul donc dafa am lu ñuy wax ay VAD ay visite à domicile loolu benn la ci mu amaat aussi lu ñuy wax ay euh, prospection yoo xam da koy def ci ERP yi maanaam mu bu ne ERP nag mooy lépp fépp foo xam ne rek dañ fay jaay ay ñam waaw établissement recevant du public lañ koy wax ci tubaab maanaam bërëb yoo xam ne daal daf nit ñi dañ fay daje mën nañ ay ñam mais maanaam fu nit ñi di daja la waaye nag rawatina ci nga xam ni dañ fay jaay li nga xam ne mooy ay ñam su ko defee euh, loolu it beneen stratégie la maanaam dem ci population bi ci li nga xam ne mooy seen liggéey ak li nga xam ne mooy seen yitte ñuy leen fekki foofu di waxtaan ak ñoom euh, dana ci bokk aussi lu mel na que ay causerie maanaam ñëw ci gox bi dajale leen ci ay nit wala ci ay association yoo xam ne dañ leen di dajale su ko defee di waxtaan ak ñoom di leen yee bokk na ci lii nii nga xam ne ñu ngi koy def nii maanaam euh, euh, télévision yi ak rajo yi média yi daal maanaam euh, di fa jàllale aussi li nga xam ni moom mooy moom mooy suñu suñu suñu yeete jëmale ko ci population bi ak loo loo xam ne daal maanaam lépp loo xam ne rek moyen la pour que wax ji mën a àgg ci population bi nga mën leen ci yee loolu moom euh, euh, service d'hygiène dañ ciy jaar waaye nag yi ci gën a fës oh. gën ci yaatu mooy li ñuy wax naan visite à domicile yi muy VAD ak li nga xam ne aussi dañ koy dem ci euh, boutique yeeg ci restaurant yeeg grand grand commerce yi wala ci yeneen bërëb yoo xam ni maanaam nit ñi dañ fay daje ngir ñoom it di waxtaan ak ñoom di leen yee di waxtaan ak aussi ña moom bërëb yooyu oh. ci naka la naka la ñu war a ñoom it doxalee bërëb bi ba nga xam ni ña fay ñëw danañ am sécurité ci ci ñëw bi ñu fay ñëw. muy lu am solo. Mm-hmm. te itam xaw a compliqué. ndax ak dëkk bii ni mu bindoo. <laughs> Mm-hmm. visite à domicile yi. Mhm. xëy na su lu lu néew ngay dugg ci kër. fekk norme yi nga xamante ni mooy norme hygiène yi. Mhm. Euh, méngoo ak ak ak ak ak barab ba. Mhm. bu boobaa xëy na da ngeen yeete da ngeen sensibiliser. waaye nag faaw mu am itam beneen beneen beneen côté. beneen côté am na beneen côté. waaw bu ñuy wax répression. répression waaw maanaam comme ni ma ko waxee sànq. Euh, li jiitu. ci bi service d'hygiène bi mooy yeete bi. bi waaw yeete xamal nit ki mën a xam. mën a moytandiku waaye nag dafa am beneen wàll woo xam ne nag moom mooy répression bi uh-huh. su ko defee eh, eh, eh, bu fekkee ni fa àgg nañ foofu maanaam loi bi dafa am ay ay articles yoo xam ne teg na ko ay peines yoo xam ni uh-huh. maanaam da koy teg kenn ku nekk ci façon infraction maanaam uh-huh. niñ koy daanee maanaam donc li nga xam ni nit ki def na ko te jaarut yoon nga xam ni mën na indi jëye ci population bi loolu donc dafa am ay ay ay peine yoo xam ni euh, loi bi da ko teg ci ñooñu masalan tey ki nga xam ni mbalit mi na ko waroon doxalee doxalee wu ko noonu ba nga xam ne tey bu tawee da koy mën a yóbbu tasaare ko mm-hmm. indi ay jafe-jafe ci mm-hmm. population bi ki mm-hmm. nga xam ne tey foos bi dafay xelli mu waroon koo tëj ba nga xam ne du xelli bu taw bu ko tax ndox mi taw bu fekkee wala boo xale yi fo ci foofu mën ci indi ay jafe ki nga xam ne tey foos bi dafa fees waaye woowut oto bu ñëw manque ko yóbbu ko fa mu ko war a yóbbu mu jël ko tuur ko ci mbedd mi yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne tey kon bu ko service d'hygiène gisee gannaaw ba mu yeewee nit ñi ci ni nii ak nii la ñu war a doxalee bu la gisee nga dox def ko defaat ko it day maanaam mesure répressive yooyu yoo xam daan lay teg ci kaw te yooyu yoon moo ko moo ko moo ko tëral yoon bi moo ko tëral du service d'hygiène rek moo xalaat mais yoon la yoon code pénal waaw code bi moo ko ko code hygiène moo ko ko tëral muy loo xam ne nag lu yaa ngi wax lu bari ci dëkk bi nag lu am jafe-jafe surtout boo ñëwee ci côté yëpp sax ci kër yi noonu ko ko waxee ci mbalit yeeg mm. ni ñuy ni ñuy war a sàmmonteeg cet gi mm. waaye bi ci gën a gën a gën a garaaw nag moom mooy marché yi ah. ak ñiy jaay ñam ñiy jaay lekk ah. marché yi ak ñiy jaay lekk parce que xam nañ ne ñu baree bari ci dëkk bi dañu yor benn produit bu alimentaire boo xam ne dañ koy dañ koy téye ba date bi expiré ñu continuer di ko jaay sans autant que benn ñu xam ko wala ñu ñu ñàkk ko xam mm-hmm. benn am na ñoo xam ne xëy na xamuñu mën nga a jàngu mais am na ñoo xam ne ñoo ko tey ñoo ko tey mm-hmm. parce que mbiru commerce la itam dégg ñu konde te loolu danger bi ci nekk mooy mm-hmm. dafay lor ay population yu bëri sax ah, du yem ci kenn day lor ay ñu baree baree bare yooyu loolu yooyu moom yu mat yu mat yu mat a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax baax te xam naa ne am ngeen ci ay ay ay ay cas du jàpp fi may waxee ak yow nii de su ma la ubbiloon magasin bi lañ ca jàpp hmm. maanaam boo moytul da ngay daw <laughs> <laughs> fees na dell hmm. ay millions ëpp na cinq millions di dem la ne ca magasin bi loo xam ne bi ñu ko xaymaa. Mhm. ci produit maanaam toll na noonu. ëpp na cinq millions daaw rek lakk nañ fi lu tolloog ay sept millions et quelque ci produit kon li nga wax dafa dafa am solo lool muy produit yooyu nga xam ne nit ñi dañ ko jaay. Mhm. bi ci gën a doy waar mooy fan yee dafa am benn machine bu ñu génnee boo xam ni day tax dat bi bu jeexoon tey nga mën ko effacer tafaat ci beneen date. nga xam ne dateuse lay nekk. lay nekk très bien. waaw kon loolu dafa am ay produits yoo xam ni nañ ko datee dafay yomb effacé ko bu fekkee date ba passé na su ko defee mu yombaat nga teg ci beneen beneen date boo xam ni dañuy jàpp ni lii kat date bi àgg na ba fii fekk na ndekete jeex na te li ci am danger mooy euh, produit boo xam ni dañ ko conserver ay at maanaam ñun ñëpp xam nañ euh, li nga xam ni moom mooy denrée alimentaire maanaam yi ñuy jëfandikoo yow xam nga ni tey boo jëndoon sa carotte teg ko fii bu defee ay fan mu nga gis mu commencé di di di. di courir leneen lu mu mënti doon aussi noonu am na diir boo xam ni bu ko defee rek nga gis mu commencé indi jafe-jafe. Mhm. waaye yow ñu indil la loo xam ni dañ ne la mën nga ko téye ñaari at ba ñetti at lan mooy tax produit bi mën a toog foofu lu toll noonu. kon dafa am luñ ca dolli. luñ ca dolli. daa am ay yeneen mbir yoo xam ni ay produits la yuñ ci dolli. chimique yu koy permettre mu mën a def conservation boobu. loolu nag bu fekkee ni dem na ba dat ba nga xam ni buñ ko cee def xëy na defoon nañ ko ci mu baax. waaye daa am date boo xam ne bu fa àggee ka defaroon produit bi moom amatul benn garantie bu mu ci teg su ko defee loolu ñu ci defoon am na ci yoo xam bu fa àggee mën na am ay réaction am na am ay soppeeku yoo xam ni mm-hmm. produit bi da koy soppeeku ba léegi au lieu que ngay am ñam goo xam ni da ko doon lekk mu amal la njëriñ léegi ab poson ngay dugal sa gémmiñ poson léegi moom mooy dugg sa biir su ko defee loolu mooy danger jaay produit périmé su ko loolu mooy moom la ñuy faral di souvent di leen ko sensibiliser di leen ni maanaam bul ci xool aspect xaalis bi nga ciy am rek waaye xoolal santé population bi ndax li ngay jaay bu date bi demee ba passé am na fu muy àgg maanaam jaayatoo lu baax mais ab posan mën na ni moom ngay jaay su defee loolu service d'hygiène nag da ciy taxaw bu baax a baax mm-hmm. foofu aussi am na ay daan yoo xam ni Euh, buñ ci jàppee. yooyu moom yooyu moom capitaine dafa war a sévère. waaw yooyu moom am dafa war a sévère parce que. Mm-hmm. man mi nga xamante ni ab consommateur la mm-hmm. man li ma xam mooy recommandation mooy yi ma service d'hygiène jox. Mm-hmm. ne ma booy jënd benn produit alimentaire na nga xool date bi ba xam expiré na. mais ma ñëw fekk ñu def ci date boo xam ne expiré wu. te man xaw ma ne dañ koo falsifié. kooku man kooku kooku mucc ji dañ na jafe. ci def loolu moom. jàpp naa ne peine bi dafa war a dafa war a lourd moom. dafa war a am moom loolu moom loolu parce que da nga dem ba falsifier produit bi xëy na comme li nga wax sànq am na ñoo xam ni euh, mën na ni la mënuma liir mhm, waaw defee ñoom aussi nga xamal leen fi ñuy jaar ndax mhm. loolu rek nekkul raison mënuma liir mhm. ñu ne sa wet di jaay am na ci ñu mën a liir waaw xëy na sa kër it am na ci ñoo xam ne mën nañ liir soo leen indilee mën nañ la liiral produit yëpp defal la ko bindal la ko ci ci ci langue ba nga jàng euh, su ko defee bu jotee nga xam ne lii périmé na waaye da cee am ñoo xam ne nag ñoom dañuy falsifier ñooñu nag moom bu ñu leen jàppee effectivement daan gi dafay gën a métti lool sax. foo usage de faux lañ def. waaw faux usage de faux. falsification falsification li ñu dajale dafa. waaw dafa bari dafa bari te mën a lor askan bi. Ah. aussi lu bëri bëri ci ci ci ci ci ci wàllu. lu doy waar te gis nga ni ko ni ko ni ko loi hygiène bi eh, di di daane. mais noonu charia gën a garaaw waaw chariatul islam yi moo gën a garaaw ndax itam parce que loolu lor lor ay lor ay doomu aadama ci loo xamante ni ci sa ci sa bànneexu bakkan wala sa koom-koom rek nga ko teg lu doy waar la waaw mais bu dee ci bu dee ci wàllu ñi nga xamante dañuy jaay ay ñam mhm. rawatina période màggal gi di ñëw mhm. nga xam ne jaaykati ñam yi dafa bari mhm. même Touba rek léegi seetlu naa ay resto ay ay kii yu baree bari di fi di fi ubbi ñooñu pour ubbi ko Euh, am na am na ay visite médicale yu ñu war a def ay papiers yu ñu war a am yoo xam ne yuy wane ne mhm. ñi am nañ sañ-sañu jaay lii du n'importe qui rek moo sañ jaay ñam ak condition yi nga xamante ni moom la condition hygiène yi nga xam ne moom lañ tëral pour mu war a jaay ñam effectivement euh, li nga wax lu am la maanaam bépp bërëb boo xam dañ fay jaay ñam ak képp koo xam ni dafa aajo jóg pour jaay ñam dafa war a jaar ci service yoo xam ni ñoom la seen liggéey màcc ci loolu mm. service d'hygiène nag da cee bokk Euh, wàllub service d'hygiène ci liggéey bu ni mel mooy déjà bërëb ba mhm, bërëb bi bërëb bi il faut nga jaar service d'hygiène su ko defee ñu mën a xool mhm. ndax bërëb bi méngoo na ci bërëb yu ñu war a jaayee ñam ah, wala déet mhm. ndax mënoo ne damay jaay ñam ba pare jaay ko ci bërëb boo xam ni maanaam dañ fay tuur ay mbalit dépôt dépôt d'ordure la wala boog bërëb boo xam ne ndox yu salte yi dañ fay dañ fay daje wala boog bërëb boo xam ni maanaam fu ñuy tuur ay ndoxu foos la wala yu ni mel maanaam mu nekk foo xam ne dafa nekk proximité ak yow fi ngay jaayee nga xam ne donc mën na am ay jafe-jafe ci côté boobu kon bërëb bi déjà lay service d'hygiène di njëkk xool ndax méngoo na bu nu xoolee ni fii kat mën nañ ko fi def aussi maanaam la la bërëb bay yóbbaale ndax ndox am na fa ndax ndax ndax dañu war di raxasu ndox ak saabu euh, euh, ndax euh, maanaam luy setal bërëb ba am na fa mhm. ci wàllu ay bale ki ñoom seen bu dee da nga ko karooleeg yu mel ne yu toppatoo cet gi nga xam ne mooy cetu bërëb bi mhm. ndox mi aussi naka la nekkee ndax am na ay douche di nga xam ne donc nit ki booy liggéey mën nga soxla sa bopp boo demee boo ñëwee it maanaam balaa ngay agsiwaat ci bërëb bi nga xam ne fa la ñuy jaayee ñam yi yan matukaay nga mën a jël ci diggante bi ba mën a raxasu ba balaa ngay agsi nga xam ne di mën a dina mën a am seet gi ci waa loolu yëpp donc service d'hygiène da koy xool euh, pour mën a am lu ñuy wax naan salubrité bërëb bi maanaam cetu bërëb bi mhm. gannaaw bi loolu amee ba ñu gis ni kat fii kat maanaam seet na waaye nag dañuy wax ci kaw loolu ni bëri na ñoo xam ne nag bu ñuy tijji duñ jaar service d'hygiène mhm. loolu it da cee am maanaam li may wax nii ni fa lañ war a jaar hmm. boo xoolee est que mat na sax loolu mooy li a mais doonut li ah li am nag waaw dana am ñuy ñëw nag hmm. waaye bëri na ñoo xam ne da ngay xëy rek ci benn bërëb fekk ñu tijj waaw waaw mais ñooñu itam da ngeen war a def descente foofu dañuy def descente xool hmm. maanaam comme ni ñu ko wax li ñu waroon xool avant léegi nag moom tijj na ba pare su ko defee léegi nga ko mën a xool waaye di nga xool ndax méngoo bi am na wala amut waaw euh, gannaaw bi loolu amee ci wàllu bërëb bi nag euh, bu fekkee ne aussi koo xam ni maanaam dafay def ay ñam di ko dugal ci ay oto hmm. maanaam lu mel ne fuur yi wala yooyu di ko hmm. transporter hmm. maanaam oto ba koy transporter it ñu xool moom it ndax méngoo na ci ak oto boo xam ne war na. Hmm, yaa ngi wax lu doy waar capitaine capitaine oto mburu yi oto mburu yi loolu beneen affaire la. <laughs> beneen affaire la da ngay gis ay nit ba ba ba jot. Hmm. mu dem di servir mu dem di servir loolu loolu loolu lu moom kuñ ci jàpp ñoom xam nañ loolu waaye nag xam nga ñi ñiy daw di rëcc dañu bëri. ndax comme ni nga ko waxee sànq hmm. deuxième ville du Sénégal. boo ci amee juróom-ñaari nit yoo xam ne ñoom ñooy def liggéey bi loolu moom dafay dafay dafay dafay xaw a booy xool fii nekkete am na ñuy rëcc fële. waaw loolu moo ci xaw doy waar waar fañ fa la cay mujj nag mooy ñenn ca bërëb ba di ca jaay uh-huh. ñooñu aussi dafay am lu ñuy wax certificat médical boo xam ni uh-huh. dañ ko war a am te boobu nag ki koy saytu mooy docteur bi uh-huh. docteur bu mag lay doon koo xam ni donc docteur lañ koy woowee mu am qualité docteur aussi ñooñu ñooy ñi nga xam ni ñoom ñoo koy visiter pour mën a xool ndax moom kat mën na jaay wala mënta jaay ndax amul ay feebar yoo xam ne dafay dafay wàlle wala day indi ay jafe-jafe ci njaay mi su ko defee ñu saytu ko bu amee feebar yooyu ñu écarté ko ci njaay mi jox ko traitement boo xam ne ci xaalisam la mu jënd boo wér soog a mën dellu si ci yaay boo amul nag ñu defal ko lu ñuy wax benn certificat médical. Hmm. su ko defee loolu mooy permettre mu mën a mu mën a jaay. mën a jaay. macha allah muy loo am solo. muy lu am solo loo xam ne askan wépp war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax te xam ne euh, santé publique du caaxaan. déedéet santé publique du caaxaan te lépp lu koy menacé. Mm-hmm. ñun ñëpp war nañu maase maase ànd xeex loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. kon service d'hygiène service public la mais service population bi la. dafa ñu dafa ñuy dafa ñuy aar. dafa ñëw pour aar il faut nag loolu loolu loolu itam ah, nit ñi nit nit ñi xam ko. exemple bi ma la ci mën a jox rek mooy tey euh, euh, ki nga xam ni. maanaam tey dafa dafa dafa dafa jël lu salte di ko sànni ci mbedd mi hmm. ndax da ko sonal ci biir këram wala moo xam ndoxu foos la moo xam ndoxu fóot la ndax nit ñi yenn saay boo waxee ñu ne ndoxu fóot la wala ndoxu raxas hmm. boo ma ndoxu fóot la ma ne la li ñuy fóot lu tax ñu koy fóot dafa salte hmm. kon na ngay sotti lu salte la ah boo ma nee ndoxu sangu la man la lu tax ngay sangu dafa am tilim guy wàccee ci sa kon boog ndox may génn aussi am nay doomi jàngoro yu muy yóbbaale su ko defee kon loolu tey yow Euh, rawatina nag li nga xam ne mooy ndoxu foos ndoxu boobu nag yow nga jël ko xel ko ci mbedd mi euh, euh, bu ca benn nit bu ca amee ay doomi jàngoro yoo xam ne mën na indi loraange te day wàll ci nit ñi dafay dafay bëri lu muy wàlle tey bu ca kenn jëlee feebar boobu rek dangay ngay xëy suba mën na yóbbu askan bi yëpp ah mu yóbbee leen feebar bu ah ñaaw foofu yow dèjà comme ni nga doon wax sànq ci wàllu charia boobu dañ leen koy bàyyil dangay gis kon yow xoola jafe-jafe bi ngay benn mbir boo xam ne da nga ni ah lii de xaaral ma defee ko nii ndax mbedd mi mbedd buur la nga def loolu lor ci askan lëmb. waaw mu nekk loo xam ne tey bu ci épidémie déclaré woo. Euh, euh, lan cay dépense ci xaalis dafay bëri lool. Mhm. parce que épidémie xasee ba déclaré wu maanaam ay somme d' argent yu extraordinaire lay état di débloqué. Mhm. pour mën a fay li nga xam ne moom mooy ah, épidémie ah, boobu. Ah, rawatina aussi ña nga xam ne dañ ciy ñàkk seen. ci loru ci mhm. ñii seen liggéey sax mën nañ ko ci ñàkk aussi. ndax toog bu yàgg bi nga xam ne demuñu ko liggéey xëy na. ka leen doon jël moom daa am diir bu mu ko may ak yeneen ak yeneen maanaam la ci mën askan bi mën cee loroo dafa bëri waa euh, ndoxu foos yeeg yooyu. muy lu bari ci dëkk bi te lu léegi da ngay jaar am mbedd da ngay mujj dëppaat. Mhm. mbedd moo xam ne doy na waar. ñu dëkk ci kër gi ñu ngi defar seen raccord. Mhm. muy muy tiwo muy génn ci mbedd mi boolem ndoxu sangu yi wala ndoxu fóot yi di mhm. tasaaroo te xamuñu ne mbedd moomu yow gan gi seet si sax. foofu lay jaar di ñëw. yow mi génn ci kër gi jàpp ba noppi war a dem jàkk ci ngay jaar di dem. ngay jaarat ci ci sobe soosu di dem. Ah, ak it foos yi nga xam ne day nekk ci mbedd mi. vraiment Touba. amuñu lu war a tax ñuy def fosse ci mbedd ndax kër yi yaatu na macha allah fu nekk mën na am ay foos septique mais jël ab fosse def ci mbedd kooku moom danger yi ci nekk mhm. dafa bari surtout nawet bi nga xam ne mhm. fi day taa dootoo xàmmee fosse ak fudul foos li muy jur ci ay loraange ci dëkk bi capitaine foofu moom wares na cee taxaw bu baax ba loolu moom li nga wax dafa am solo lool lool lool rawatina fi nga am na foo daaneele sànq ni ni ni ci Touba man bi ma ñëwee mm. li ma njëkk yéem mooy alhamdulilah comme ni nga wax kër yi macha allah dañuy yaatu ah. yaatu nañ suuf bëri na fi am na nag ay bërëb yoo xam ni moom dafay dafa dafa dafa dafa dafa dafay taa mm. waaye yaatuwaay kër yooyu waroon na tax mbirum foos warul woon nekk problème non seulement di nga am foos bi ci biir kër gi mm. waaye di nga am lu ñuy wax puits perdu boo xam ne da koy àndal mm. su ko defee lépp loo xam ni ndox la rek day mën a dañ koy mën a sotti foofu mu évacuer wu te du am benn jafe-jafe loolu nag dafa nekk loo xam ni effectivement lu lu diis la ci suñu liggéey ko waxee waxee sànq liggéey bi diis na loolu bokk na ci muy foos yi ci mbedd yi ak ndox yi nga xam ni dañ koy tuur ci mbedd yi euh, foofu moom dafa dafa dafa nekk loo xam ni danger bi ci ne comme ni nga ko waxee rek dafa dafa dafa yéeme lool lool lool euh, foosu mbedd euh, am na danger ci ci anam yu bëri benn mooy tey def nga foos bi ci mbedd bi bu demoon ba am jafe-jafe fees yógoo ko mu am fu mu bët hmm. ndox maa ngi xelli ci mbedd mi di indi ay loraange ci askan wi foos boobu nga def ci mbedd mi am na si ñoo xam ne sax duñ jël mm, mm, matukaay sax mujj ko àggale bu mu jeex hmm. dañuy jël ay zeng wala yooyu teg ci teg ci kaw buy taw mu lëndëm nit mun na dox ba dugg ci biir te loolu yëpp yàgg nañ koy dégg ay nit ay xale yoo xam ne daan nañ ci ay foos ay oto mën nañ dugg ci biir hmm. loolu yëpp doon ay loraange fa nga def fosse bi ci mbedd mi waajaloo ko sa biir kër boo tabaxee kër ga ba mu àgg ëllëg bu tali doon jaar foofu dana dajji fosse bi ah su keroogee yeneen travaux supplémentaires dana la ci fekk yoo xam ni il faut nga dugalaat fosse bi ci biir kër gi mu ah indi jafe-jafe ah kon loolu dafa nekk loo xam ni loraange kese lay jur ci askan wi euh, rawatina nag euh, mu am ñoo xam ni bu ñuy gas fosse bi ci mbedd mi ci gaawantoog làqatu bi te bañ a jaar fenn fu ñu war a jaar ci usine wala feneen tiwo sax bu fa jaaree dañ koy boole ci biir fosse loolu laa doon wax nag loolu laa doon loolu laa remarqué nag <laughs> na ay robinet yoo xam ne tey boo ko ubbee da nga gis boo xamante ni da lay leer ne lii odeuru fosse septique bi la tiwo bi dafa jaar ci wetu fosse mhm. te bari na ay ay ay maladie yu mu indi créé ci dëkk bi yoo xamante ni mhm. loolu li may wax ni moom ay docteur yaa ngi may déglu lu baree bari ñu baree baree bari am na feebar yu mu leen jox mhm, effectivement effectivement li nga wax lu am la loolu moom pour xool feebar yi muy joxe moom boo demee ci docteur docteurs yi boo xool seen registre yeeg di nga gis ay xeetu feebar yoo xam ni effectivement ci ndox mi lay tukkee te loolu bokk na li li koy indi ndax du benn yoon du ñaari yoon ñu ñuy interpellé ci côté yooyu ngay ñëw ñu ne diw mi ngi gas force wala yow nga dox ba daj ci ba nga ñëwee da ngay fekk ni robinet ma nga ca tiwa robinet bi da ca doon jaar te boo boo ko gisul woon rek maanaam noonu la doon pare ba suul ko fan yële ci kaw mosoon nañ ci am ci ci ci foo xam ne dañ ñu woo woon benn ban ban tànkee ndox bi boo ubbee robine bi maanaam ndoxu foos mooy xelli uh-huh. kooku moom tuyau bi dafa dafa dafa dafa bëtt bëtt bu doy waar boo xam ne ndoxu foos bi daf fay fiit bu mag fiit bu mag la ci foos bi ndoxu bañ ko toppee effectivement tuyau baa ngi jaaroon ci biir foos bi c'est dangereux donc euh, xoolal ma loraange googu uh-huh. finalement yow yaa ngi ci lor sa bopp di ci lor askan wi comme ni ñu ko doon waxee loo xam ni kenn xamul maanaam jëye bi fu mu fu te nag capitaine gis nga euh, def lu def lu jaaduwut def lu bon fu nekk la bone waaye rawatina dëkk bu sell bu bu mel ni Touba parce que borom santaane wu ko vraiment dafa bëgg ñu tënku ci euh, norme yi nga xamante ni moom la yoon tëral rawatina ci wàllu set waaw lislaam set la santaane yoonu murit sëñ bi euh, soññee na ci set ba tàyyi di mm-hmm. d'hygiène boo xoolee ak ñëwam fii mm-hmm. lu ñu lu ñu sàkku kilifa yu ko sàkku mu ñëw fii mhm. donc kon loolu talibé war nañ cee ubbi seen bopp bu baax a baax a baax mhm. bàyyi wàcc xel bu baax a baax ak loraange yi mën a jur te nag da nga jàpp ne sax day lor keneen mhm. mais yow ci yow lay tàmbalee sa njaboot jiitu waaw yow sa njaboot lay jikko tàmbale yéenay jiitu waaw yéenay jiitu mu soog a law ci ko mu soog a dëkkaale ak àqu dëkkaale ak àqu dëkkandoo li ci li ci loolu moom nga wax dafa dafa am solo euh, yenn saa yi euh, nga nga nga gis nit ku ñëw am lu mu wax ba ni waaw dëkk bi dëkku yërmande ma ne ko li wax yëpp dëgg la uh-huh. waaye lan mooy dàkkantalu Touba waaw bu nee Touba lu ñu cey teg mun nga dëkk bu sell ma ne ko kon service d'hygiène moom moo waroon gën a yomb liggéey ci Touba uh-huh. Uh-huh. <laughs> ndax yow wax nga wax ji dëkk bu sell bi te boo boo tajee sell da nga ca fekk cet ak da nga ca fekk lépp loo xam ni maanaam dafa jëm ci loo xam ne luy defar la te yiw la ma ne ma xamal xamal leen di di leen ci yées ci ni leen eh, comme ni nga ko waxee sànq maanaam ki sànc dëkk bi eh, mbindam yëpp dafa jëm ci wàllu loo xam ne lu lu laab rek lu laab la lu sell ma ni kon eh, loolu dafa war a nekk ab yombal ci service d'hygiène ba nga xam ni benn jafe ji ko du ko am fii waaye nag da ci am des fois nga daj ci ñoo xam ni eh, dëgg-dëgg la ñuy def moom dafa yéene lool lool te boo waxee it ñoom dañuy jëfandikoo leneen loo xam ne naam lu am la sax muy ah ñi ngi jéggalu rek ah waaw ñi ngi jéggalu léegi yow yaa ngi lor askan wi ba pare di sàkku njéggal ci kaw loolu loolu dafa doy waar moo tax nag foofu ñoon maanaam bis bu yàlla sàkk da ngay gis ni dañ ciy am dañ ci am ay nit yoo xam ne dañ leen di topp ci loolu non foofu moom il chaque jour laa lay wax bu baax a baax ci di nga am nit benn ñaar ba ñett yoo xam ni ay intervention la yii dañ lay woo ah, yii yaay dox ba gis ko mhm. ci ñoo xam ni ci wàllu foos la yu mm, ñuy vidé ci mbedd mi wala foos bu ñuy gas ci mbedd mi te boo ñëwee di nga fekk soit des fois tuyau di ca jaar wala tuyau bi jege ko wala yu ne mel wala kay vider kaam nga gas pour vider maanaam tuyau ba ma nga fa jaar teewul mu ngay sotti ci biir ba nga xam ne ay jéego yu bëri mën na ci loolu tam est-ce que il faut askan wi xam ne euh, nombre agents yi service d'hygiène yi naam wuñ hmm. waaye dañ leen war a jàppale hmm. ci buñ gisee lu jaaduwut mhm. ñoom ñu woo leen wax leen ne fii kat gis naa fi nangam ak nangam loo xam ne dëppwut ak hygiène loolu tam euh, population yi war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax di leen di leen ci jàpp moo tax ñun sax lu ñuy wax réclamation yi souvent mooy doon suñu priorité waaw réclamation parce que comme ak comme niñ ko xamee euh, nombre agent yi bëri woon mhm. kon ki nga xam ni moom gis na ba woote mhm. ni ah gis naa loolu dafay doon suñ priorité ñu gaaw dem foofu uh-huh. ngir mën a saafara saafara mbir moom uh-huh. kon foofu li lool loolu lañ ci lañ ci lañ ciy wax mooy uh-huh. il faut askan wi jàpp jàpp ci waaw bu baax dëgg-dëgg euh, su su ci benn dëkk bu doon liggéey préfet bu doon wax naan ki am sañ-sañ yàq yow amal sañ-sañ boole ko waaw boole ko waaw moom daa am sañ-sañ damay yàq euh, da mën naa lor parce que sa vie lay menacé merci kooku sa vie lay menacé yow amal sañ-sañ nag boolee ko pour que menace boobu mën a dakk balaa jafe-jafe di am kon loolu dañ ciy woo askan wi bu baax a baax eh, boo gisee koo xam ne mi ngi def naka sudut noonu boo ko ca yeewee yedd ko ci dégluwu la ci jëlal sa téléphone wala nga waaxu ñëw service d'hygiène yow doo ca feeñ mm-hmm. ndax loolu moom suñu liggéey la duñ ñëw di la diw kat sàngam moom mooy ki la boolee déedéet ñëw dox liñ ciy dox saafara ko ba nga xam ni yow doo ci feeñ yenn saa ñu naan ah xam naa dañ ma boole wala yooyu. ah, ah. booy yàq kay. te nangu woo jubal man man man man année yële weesu. Hmm. fi ma dëkk noonu dafa am ñu fa loué woon benn benn chambre ci ci kër gi. Hmm. di fabriquer ay vinaigre yoo xam ne acide lañ ko doon fabriquer. Hmm. mais man bi ma dexee ba gis ko. dama dem signaler leen. ñu ñëw ñu ñëw jàpp leen. booba sa ñaamal ñi ay dëkkandoo ma leen men yi xanaa ñi suñu ville la ñuy menacé. day jël vinaigre bi exposé ko jaay ko ci marché bi ñu jënd ko def ko ci ko fii am problème am problème ko fermenté waaw euh, degré bi muy jaay lan la ndax degré dafa am vinaigre loo xam ni moom lañ ci permettre su ma juumul six degré la euh, euh, kii. te informel la sax du léegi nag mu nekk informel. nekkul ci yoon donc fa mu a jaar. est-ce que am na ay papiers yi nga xam ni may nañ ko mu mën a defar vinaigre bi ci yan condition la koy defaree wax nañ ko sànq uh-huh. waroon jaar seen d'hygiène nga xam ni ba nga amee papier yi la permettre uh-huh. xam-xam bi nga mën ko def nga ñëw ñu xool ndax bërëb bi permettre la nga mën fi def liggéey bu ni mel uh-huh. méngoo naag moom wala yooyu loolu yëpp amu ci nga ne sa roq bi beneen beneen beneen mbir amaat na mooy sachet ndox yi waaw ndox bi ñuy naan. waaw doon naa ci doon naa ci bëgg ñëw de. boobu itam beneen mbir la beneen mbir la eh. xëy na liñ ci liñ ci kii ak yombal mais beneen mbir la. parce que itam fabrication illégale yi daal moom. moom moom bari na ci. gis nga ci màggal gii di waaj a ñëw. Mm. di nga gis ñoo xam ni eh, maanaam traitement ba ca war sax bu doon doon nañ ko def. période bii duñ ko def ndax demande bi mooy am mooy bëri. foofu sax laa bëgg ñëw plan d'action màggal gi. Ah, waaw tënkal ma seen plan d'action plan d'action service seen ci màggal gi. Mm-hmm. ndax gis nañ ne yenn mm-hmm. moom seen liggéey dafa dafa yaatu. Mm-hmm. avant pendant et après yëpp dañ leen di gis ci ci ci ci ci màggal gi. tënkal ñu ko ci lu gàtt xëy na ñu des ci. fi may wax ak yow nii tàmbali nañ ko yàgg. ñi ngi ci programme màggal gi nii mm-hmm. euh, agent yi ñëw nañ lu tollook ci li fi nekk délégation bi yëpp boo ko wàññee dana tolloog ci téeméer ak euh, ak ak ak ak ñeent fukk ak ñaar fukki nit. Mm-hmm. agent yoo xam ne ñi ngi fi. Mm-hmm. Euh, ñëpp taxaw ci jàpp liggéey bi. ñii nekk ci wàllu pompe yi. ñii nekk ci wàllu contrôler li nga xam ni mooy qualité ndox bi ñu ko waxee nekk ci wàllu contrôler li nga xam ni mooy denrée alimentaire yi li fiy dugg nit ñi di ko jëfee ñii di contrôler li nga xam ni moo jëm ci wàllu kër yi foos yeeg ndox yu salte yi ak yu di mel donc loolu yëpp ñi ngi fi tàmbali liggéey bi euh, di ci continuer ba keroog bu màggal gi jeexee ñu def ñaari fan ba ñetti fan nit ñi soog mën a mën a mën a ko plan bi ñu ci am mooy comme ni ko waxee léegi ci wàllu plan d'action bi mooy donc euh, euh, loolu mooy li nga xam ni moom la ñu waxtaay ci oh. màggal gi oh. mooy dana am ay équipe yoo xam ni eh, ak commission bi lañ ci lënkalool oh. muy commission d'organisation bi kër yi ñu jox yëpp ni nañ ko pompe incha allah dinañ ko pompe bu ñu pompee kër yi it dinañ defaat yeneen action yoo xam ni dafa jëm ci askan wi ndax dana am xëy na ay kër yoo xam ni bokkuñu ci pompe bi waaye dañuy def lu ñuy wax saupoudrage waaw su ko defee ñu dugg ci koñ yi uh-huh. dugg ci roq-roqaan yi uh-huh. vraiment xëpp benn poudre boo xam ni day mën a rey yooyu surtout yooyu yooyu bari na lool leen di rey moom lool ñu dinañ ci ñëw dugg ci gox uh-huh. goxaan yi def lu ñuy wax saupoudrage euh, bokk na ci aussi loo xam ne waajal nañ ko ci lu ñuy wax délarvation ndax na euh, màggal gi dafa nekk léegi ci ci période hivernage waaw ah, période hivernage donc day am ay sites yoo xam ni taataay yi taataay yi da ngay gis ni ay vrai gîte larvaire la maanaam dafay bëre ay wallax njaañ yu nga xam ne ay judd mujj judd mën a joxe joxe li nga xam ni moom mooy moom moo moom mooy yo yoo bi mu xam yoo buy joxe si buru wala beneen yoo bu mën a sonal askan bi su ko defee nga def fa lu ñuy wax délarvation maanaam ñëw rey leen foofu ci ndox mi yooyu doo sax xaar ñuy judd ngay pomper ñuy dee foofu nga leen di éliminer donc yooyu ay action la yoo xam ni moo jëm ci wàllu technique bi opération technique yu ñuy def bu ñu fa jógee nu def contrôle qualité de ndox boobu ndox bii nit ñi dinaa dinaan bëgg nañ dem ci fépp fuy forage fii ci tuuba mm-hmm. ñu xool ndox bi. Mm-hmm. waxtaan ak ña fa nekk. Mm-hmm. ci ndox bi ñu koy def eau de ñu koy sellal ndax aussi euh, euh, euh, xëy na réseau bi mën na am ay fuite wala yu ni mel. waaye bu fekkee ndox bi sellal nañ ko ca tàmbali ba. la ca war ci quantité eau de ñu def ko ci. loolu dana tax doomi jàngoro bu mu fekk ci yoon bi aussi. dana la mën a faagaagal. donc loolu danañ ko def waaye it xool. ñi nga xam ni dañuy jëlee ndox yi ci teen yi. xam na ñoo xam ndox bu neex. la ñuy la ñuy bëgg te yooyu da ngay dem ba ci teen yi fële tànk ko fa nit ñi di jaay ak seen ay bidon yoog yooyu aussi mhm. lu ñuy lu ñu lu ñu lu ñu mébét la ci di ko contrôler mhm. mm, waxtaan ak ñoom aussi mhm. ci naka la ñuy def ba ndox boobu mën a sell boo ñu mën ko jëfandikoo te du am benn jafe-jafe ci ñoom euh, bokk na ci aussi maanaam di dem di contrôler li nga xam ne mooy denrée alimentaire yi li nit ñi jëfandikoo ci wàllu ñam yi donc dem ci marché yi dugg ci yenn boutiques yi dem ci restaurant yi ñi nga xam ne ñoom dañuy togg di jaay dem ci ñi nga xam ne aussi Euh, grande surface yi la yooyu yëpp dugg ci xool ñi nga xam ne bu dee lu périmé la wala boog anam ba nga xam ni moom la ñuy moom la ñuy toggee anam ni ñu koy dencee ak yooyu yëpp anam bañ koy jaayee loolu yëpp aussi euh, bokk na ci programme service d'hygiène ak li ñuy wax grande cuisine ñi nga xam ne ñoom dañuy togg aussi ci màggal gi dañ leen di accompagner ñoom it ci ay ci ay yoo xam dañ leen koy may di leen accompagner ci ay lave-mains di leen accompagner ci lépp loo xam ne en tout cas am nañ ko te mu mën a euh, jëriñ incha allah loolu aussi lu ñu leen di accompagner Oh, donc yooyu yëpp ay action la hmm. yoo xam ni ak ñiy dem aussi ci askan ci wàllu hmm. euh, foos yeeg hmm. euh, wàllu mbalit yi ndox yu salte yi di sensibiliser pour que nit ñi mën ci jëm ay ay matukaay nit ñi mën a ñëw màggal si jàmm ak salaam mën a delluwaat seen kër. te benn feebar du fi judd. benn feebar du fi dugg. duñ fi jëlee benn feebar. incha loolu daal ñu ngi ciy woo askan wi bu baax a baax nañ ci jàppale service d'hygiène. képp koo xam ne gis na loo xam ne jaaduwut. Euh, naw na na na ñëw service d'hygiène mhm. mu def li nga xam ne moom mooy réclamation mhm. boobu waaw loolu loolu moom la loolu moom am na solo mhm. euh, waaye am na benn phénomène boo xam ne xëy na na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax parce que màggal Touba xam nga dafa doon léegi euh, mën naa wax ne événement boo xam ne mbooleem société yëpp moom la ñuy xaar pour euh, yéegal seen chiffre d'affaires ba tax na am na ñoo xam ne dañuy bëgg rek raaxaloo ci biir màggal gi jële seen i produits ci bitti gaaw dugal ko ci biir dëkk bi euh, chaque année dañ koy seetlu ngeen ci def ab liggéey bu am solo loolu tam xam naa ne di ngeen ko bàyyi waale xel ci liggéey bi effectivement dinañ ko bàyyi xel bu baax uh-huh. ci ci ci ci ñi nga xam ne dañuy indi yenn produits en grande quantité uh-huh. daaw rek déjà am na si ñoo xam ni ay meew lañ doon jaay potu meew cent franc ñaar fukk uh-huh. ci boor yi bi ñu ko waxee aussi def nañ ci ay ronde vraiment ba am na si ñoo xam ni effectivement jàpp nañ leen ci waaye des fois it nit ñi nañ koy defee xam nga rek dañuy dañuy làqatu dañuy làqatu waaw parfois it population bi malheureusement ña ca a jàpp ñoom ñooy jël di leen làq sax waaw waaw da nga dem a te ñii dañuy ñëw pour aar la moom daal doy na waat boog loolu xam naa ci difficulté yi la bokk xëy ñu dese ci waxtu mhm. dafa a néew simili yu mm-hmm. néew la mm-hmm. pour nga euh, kii résumé rek ci mm-hmm. quelques difficultés yi nga xam ne da ngeen koy faral di am te am na ci yoo tudd sax xëy na ci biir wax ji yoo xam ne bëgg nga askan bi di ci di ci gën a jàpp waaw waaw alhamdulilah euh, bu ñuy ñëw ci difficulté yi euh, bu ñuy njëkk cité difficulté institutionnelle lay doon wax nga ko sànq junñu nga ko muy vraiment bërëb boo xam ni service d'hygiène da cee war a ah, nekk loolu moom dañ koo aajowoo lool lool lool sax dafa ci ci ñu am bërëb bu yaatu boo xam ni parce que nañ day def ñu ko ay produits ak Euh, bu dee yenn bërëb yi daanaka ñun ña fay liggéey sax dafay nekk danger. nekk danger ci yéen ndax produit yi fa leen war a denc. chaque jour presque yaa ngi leen di ah. nooy yi di jànkoonte ak ñoom. Mm-hmm. kon loolu maanaam lu ñuy yittewoo la. Mm-hmm. yittewoo it dëkk Touba euh, ci ci ni mu nekkee deuxième ville du Sénégal. ci bi waaw dafa néew dafa néew vraiment effectif bi moom loolu moom loolu la boo xam ne ñun population Touba sax ñoo ko war a yëkkati parce que am ne a <laughs> a ne mm. ngeen ñu joxee caserne sapeur pompier bu eh, mag eh, eh. defal ñu ay ay ay spécial mm. defal ñu ay commissariat annexe defal ñu brigade euh, gendarmerie defal ñu escadron mais itam service noonu lañ bëggee itam ni ngeen ah, jox ko gëdd parce que nag mm. kii nag mooy aar suñu santé de ah, suñu suñu wér gi yaram ah, waaw loolu moom loolu moom ah, demande la boo xam ne moom dañ ko war a yëkkati ci kaw moom euh, euh, autorité étatique yi nekk ci kaw hmm. man ko man ko mën ko dégg moom man ci jàpp bu baax a baax incha allah euh, yi nag yi ñu am aussi ci wàllu liggéey comme ni ñu ko waxee sànq yenn saa yi nga daje ceeg ñu xaw a difficile waaw xaw a doy waar nga xam ni donc xëy na defar moom hmm. Euh, xaw ma dañ cee bëggul dara wala waaye daal euh, lu lu yéeme la te pourtant am nañ sax ay moyens pour def mm-hmm. waaye daanaka dafa mel na daal mm-hmm. genre défi lañ koy lañ koy jàppee ah. su ko defee kon loolu aussi ay difficulté la yoo xam ne dañ koy faral di di di jànkoonteel waaye ñu ngi ci góorgóorlu jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, capitaine Alassane Salam Keita mi nga xam ne moo jiite brigade service d'hygiène bu Touba ñi ngi sant bu baax a baax ci jataay bi nga xam ne moom lañ amoon euh, tey wax dëgg yàlla développé nañ ci bare bare xam naa xëy na waxataayu waxtu bi sax mais dinañ ci dellusiwaat incha allah ah, beneen yoon euh, nañ la dalalaat bu ko defee ñu gën a mën a sensibiliser askan parce que lu lu am solo la ñi ngi lay sant bu baax a baax xëy na ñu doon teewlu mbokk doon sitaan MK TV lii tey moo doonoon daje ñu doon ci dalal nag euh, Alassane Salam Keita mi nga xam ne moo jiitee euh, brigade service d'hygiène bu Touba ñu doon waxtaane lépp lu aju ci wàllu prévention ci wàllu cet euh, liggéey bi nga xamante ni dañ koy amal ci dëkk bu sell bi rawat na ci waajtaayu màggal gi kon ñu ngi yëkkati foofu jataay bi di leen dig daje ci beneen jataay insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh وليكن ربا وليا ونصير يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه والتكفيه عن نكدي